internet du DK TV merci encore alors ñi ngi taxaw ak Boucher euh, Boucher Ketchup mi nga xam ne Sénégal yëpp ko bëgg Sénégal yëpp ko naw euh, ndax mën lu baaxam ak mën wax lu baaxam alors. booy. miin nga gàmbi nag. trop mais sa daanu bi ñëpp dañu tege ne da nga fecc ba daanu. non non ñiy def loolu nañ taxaw xaar man def ma lu man maa ko man maa ko def man maa ko tay man artiste laa lu ma neex laay def su ma neexoon samp sama bopp bi yëkkati sama tànk yi ca kaw eh. lépp mën naa ko artiste laa yàgg naa ci aar bi. maa fecc ba new taj tan taj tan taj tan ku rada bi daa bin tar eh. loolu man maa ko def yaa ko def waaw Officer. wàcce leen ko police wàcce leen ko ma jëm jëm li nga Sénégal yëpp nga wax mais Boucher li waaw di nuyu Abbas jaaju bu baax jaaju maam Bouré moo ma yóbbu woon Gambie ca Youssou Ndour ba waaw sama papa Youssou Ndour teeru ma sagal ma ah, jàppale ma fa Abbas woo ma dooleel ci hôtel bu baax. yóbbu ma ci hôtel bu luxe yóbbu ma fu neex ah waaw Abbas moom maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér jaaju maam bu Serigne Aïda Samb loo dund doyul maa ngi koy siyaare bu baax di nuyu waa Gambie yëpp Gambie dafa neex barki Serigne Ba. Gambie dañ la bëgg de Gambie. trop Gambie dañ maa bëgg parce que man nag Gambie laa yaroo falaa juddoo fala yaroo falaa màggee falaa defee lépp. Bakote Sancaba Serekunda Tabokoto Talinding Latrikunda Jaman Burusubi Josuwan Tabakurut Lancaster te sa digganteeg Youssou Ndour parce que Youssou ma jigéen euh, ku ne xam na ni seenam du seenu cambar cambar mais dañu dem ba jox la gëdd boo xam ne heure boo ñëwee rek am nga accès si seen bi sa digganteeg légende boobu. moom moo ma woo man du dem fu ma woowul. papa mooy jël téléphone am allo mon fils foo nekk suba damay dem Gambie préparel allo mon fils Bercy ñëw na préparel bi mu may yóbbu Bercy dafa woo Birane ne ko Birane. ketchup préparé ko ñu wutal ko visa mu dem biraan ne ko ketchup passeport américain la yor mu jàpp bopp bi ne mais c'est trop facile loolu moo gën a yomb moom xamul lu woon passeport américain laa yor bi ma ko waxee nag dafa kontaan ne kon jaratul visa léegi na ñëw ñu jox bi lépp ñu gérer mu bëggal ma boppam ma koy ñaanal jàmm ak salaam gudd fan ak wér kenn du moom sama papa jooju maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla defal ko jàmm waaw. sa diggante ak moom daal diggante papa ak doom la. papa ak doom la sama papa la sama père. DK TV man ñaaxarañ loo aka Faramaren musique maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV.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 DK TV.